wa rajawtu fi hafatan fi dunya wa ismatan fi laaxirati fa ama sababu zalika jamaa jamihi sahabati saatul yawmin fi salaati alxadaati suma nada bi bismillahi fi maqaal laay nett lee den kub rasool bam tàggu toog maas bun jabeel bam ko yebal réewi yaman bi bismillahi fi maqaal laay nettalee dénkub rasool bam tàggu toog maas bun jabeel bam koy yebal réewi yaman dénkam baak faatug rasool diisam nga tey laa misaal yëg maas ga ciy misaal te boo maasa nga yaman mahmoodu sow moom kànka ya dib ca bokki bayti ya mooy taarixal saaba ya dénku maas moon yaman fas ci yéene am ngërëm te dolli goo ci ay gëm te am ci yërmandi ki gëm borom aras roy ma salaatu xudwati teew tànnee fi saaba yépp teew nit ak jinne teew mbër ma giiw naa soxla naa ku dem yaman yaa ma seral muhaajira wa ahlu lansaari tura jibril moon xaaru hira nee yàlla neen yebleel yaman moo tax ma xëy tey jii ne yaa ma muhaajiriin lan kum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman faaruuxa jëkk buur di wër te naa ko yaa xayrul basar anaa fa xaala yaa homar jekkil du yow di dem yaman mu toog mu baa mu woo keneen yaa ma muhaajiriin lan kum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman usmaana jóg ibnu afaan mi daw ñu jot ci alquran faxaala ya ibnu afaan iglis wala subil yaman mu toog mu baa mu woo keneen yaa ma ser muhaajiriin lan saarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman ababakar ma dib goroom moo jóg taxaw njool ma sangiim ngir ker sa gaag la muy goroom mbay xam na moom du dem yaman ababakar moo jëkk a gëm jébbal ko doomam tey gërëm te jox ko mboolem halalam topp ko di nga tu ko fekkoon na mbay moo gën a woom pasak naga xara ki gëléem la boole ak i jaam wurus la loboloon yaa tonu yaa bari nga ñaay yaa ma te ñee maana la saay ma moodu sow def na la waay yaag ilimaani waaya man Ababakar masul di tooñ way juree kenn ci musula tooñ doom jum jurit musula tooñ yàlla borom ba leen bindoon Ababakar masul di tooñ way juree kenn ci musula tooñ doom jum jurit musula tooñ yàlla borom ba bindoon yónneen ba doonoon àndandoom am na juróom fukk ci maam yu mus la tooñ yàlla te ñoom duñ mooy boroom ba leen bi noon yéenay sibaat kay nekku far kenn ba du na du yaay bàyyi xiig ba yaa ko jar yaa dàq mbuurin fi man mbay mu baa mu woo keneen yaa ma seral muhaajiriin lan saarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman xalli yu buur ak si xafaar naa su badar doon dellu ñaar maay xus ca yay lare ñaar mu nay ne doo doon yaman yaa ibnu hami yaa rasuul man fu ma xaa ci noon ñu tuul maay gaynde maay saw jut ndax man nga taamu ci yaman mu naa ko man yahri suni wa anisi wa jaarani أبو الحسين الحسني ما لي سواك لا يمن مناك من يرثني وأنزي وجارني أبو الحسين الحسني ما لي سواك لا يمن هل يدعوك وكنين يا مسر المهاجرين lan saarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman maasa jóg mu jabal mu naa yaa ibnu jabal xamal na dem yow la ñeel yaa ilimaani waa yaman fanta lakke yaa maas jibriilu moo ma maas na dem yaman doon seen liwaas moo ilimaani waa yaman yonen ba woo foofa bilaal naa ko tàllal masaan meteel mu ñëw mu daldi koy meteel te naa ko waajal dem yaman maas daal di jàpp gëléem fab la teg mu di ko yéem ba naa ko kaaya doom maas tey ma dénk law yaman yonen ba jàpp ceeb loxoom naa tey ma dénk lalu woom dénkub xarit bu di jegeem ci sun borom waa yaman itaqillaaha e yaa maas wasul lisaanaka maas wallaahu rabbuka aas هنا وفي أرض يمن إذاك لا يا ماس وزن لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن maas naa ko dolli ma leneen tebul ma dencalit leneen loo xam ne danga ko wax keneen te fekk boo maa yaman mu maas yo man isaab ñey gën metti ay xaab te seen lam ya ñuy ko góob ñooy waxi neen wax ko yaman bul rek maas te mbokk xiif te bul desal ne ko kiif te fekk say dëkkaale xiif xaraam na wax ko waa yaman boole ka tee maas ba bul denc bul wetti bu tuur gannaaw dangaa lekk ba wutal ku xiif fa waa yaman ku wóob julit di ko leen bur yàlla fab di lehal ca ñami aljana xamal lii yóbbuloo ko fa yaman te boo mayee jullit mu naan bur yàlla nandal jinaan min maa i kawsara di naan yay teeru Mustafa yaman ku sàngaab jullit malaan bur yàlla sang malaan hariiri jannati nga daan ca teeru bee wa kow yaman ku suturaal aw jullit bur yàlla def laab xarit sa yawra su ko wisiit yowmal xiyaab wa ko yaman boo wuññi lee jullit ayib bur yàlla wuññi say ayib jébbal la gaayu lay laab tey mbër ma wax ko waa yaman te boo xasee mbokkum jullit mbaate nga ngaññi ab jullit def na la jëng naari kat te jéem la lii jaru ko woon te boo xasee mbokkum jullit mbaate nga ŋañ ab jullit dem na la jëng naarikat te ceen la lii jaru ko woon ni dégg neeg malaaka teew lu buur lépp di teew malaaka fab la ñépp giiw di sa jëf ya nga jëfoon yow bul nelaw ba naa xureet ngir ruugalee mu ne xoreet mboolem njaboot ga di la seet te duñ ca fa yaman xamoo maas naari nga jëm xamul aljana nga jëm bul reeba kekku yow jahim fee jàllagoo ko bul xaram bu lekk maas ñaw wu lewul bul naan maas naan bu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas ñaw lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bur yàlla lam nuy jëkkalaaj bi ndag bi déef lay te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa bu lewulee doo mën a wéy sa yàndandoo duñ mën a nga gis ku ne wéy balam keroo nga ñam yawoon na nga yaram lu sa boroom te deel yërëm kat say moroom mi réew mën a maasa jaroom ak yërmandeem raw naw yaman xamal maas yow mar xiyaam jaan dana jénni far ni baam suubaan la tudd wenn ngaam wa daj na duniyaak ngam logon keroog nu buur bi ndee ba jaan jaa banku naari fay xiib na ba ñas ngir xaru way tooya yu dooleel repp nañ day wax ni nit te dana for way tooñ ak ña leen di far wey tabbi naari bul di far way tooñ ci atte fa yaman maas na ngay lekka laal te gadara bul ko di laal lum tuuti tuuti bul ca laal kon da nga raw fa waa yaman ndegam da ngay jëndey dinaar téeméeri junni ci dinaar ci ndox mu sell nib dinaar aljuma dellaa fa yaman ne man maas bul koy ragal ndem tooñuloo jarul ragal ngir dem na am caay nga muñal te wax ko waa yaman bul fàtte maas yow sa boroom foo man di nekk moo la moom bul sagganeeti say moroom ngir ñooy sa seere fa yaman foo ne maas na ngay xalaat ne gat siraat du mën a faat loote nang goy mën a waat demal di fa yaman foo nekk deel sa xoo kër muy xàll baag muy fa sa barab ya ñooy sa seere far yow mal xiyaab wax yaman bul fekk tooñ nga di ko far bul fa bëggit def ko ni nar kii limaan bul ko di cor bul fàtti fa waa yaman na ngay dakkaale ki faqiir miskin ya maas bu di réer te soo defee nii fekki leer di jëm foo waaye man xam nga maas kat alxuraan xamal ko képp kuy royaan faqir miskin ya andi bokki jataay foo waaye man bul sàggane dégin maas bul topp ya kat maas képp ku dee réccu maas te fekk wii na fa yaman mu naa maas yow taxawal yaatul watul kañaani xol jàppab loxoom naa ko muñal tey topp tooy jarak yaman jàppal ma dénk maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajeeti yow maas yow mal xiyaab laatiw yaman jàppal ma dénk maas ngir man ragal naa maas ba nuy dajeeti yow maas yowmal xiyaam laatiw yaman maas ko yaa rasuulullah nëb naa sa dénk bi walla may sàkku ndimbal ca ilaa ak dénk bi fa yaman maas ko yaa rasuulullah nëb naa sa dénk bi walla may sàkku ndimbal ca ilaa ak dénk bi fa yaman yónneen ba jàpp cib loxoom ñaanal ko tafli ci loxoom danaa maas waaxule doom tey dénk naa la waaye man dénku maas ba fii la yem xatteem ba tey laay bëgg a jëm xaatuk rasuul gaa ku te boo maasa nga yaman keroog ba maas yeggee yaman yëggangu neem nga fa yaman ba yàlla fukki yoon ak yaari yoon fa waa yaman julli ci yonen ba bu baax waar leen ba xol yene firaax yaman ñanaa jiiwaaya baax sa wàccuwaay moo di yaman julli ci yonen ba bu baax waar leen firaax yaman ñanaa jiiwaaya baax sa wàccuwaay moo di yaman dana la ngëb di la teral yaag sa njaboot di leen bégal mu jooy fa jooyu réy ba dal ñu di ko yaman فمن يبديك يا ماس خال لوم ليساس أمر سيدي ماس حبيبو عند اليمن ñulaaj ko lan la la digal mu tontu leen lam ko digal nemmi ku way ragg tebul saggane miskin fa yaman maa fa ñoom di leen digal amat mu lenn mankiwul muy fukki weer ak yaar xamal lii la saxoon fa waayaman xam jëmmi bés maas di nelaw lisaan war tiim ko na yow yeewul maas dangay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonentu baañ ci sukuraat yow ngay nelaw ba kuréet mboolem saa ba diit yow ngay nelaw fii yaman dellu ko baa mu ne maas yonen ba faatu na maas yëgal na Madina maas kenn nelawul yaa ngi fi yaman dellu ko baa mooti fi naa ko yëgal ne sile saa suuf tiim na yonen ile saa mu tidd lox fa waa yaman keroog la maas yaman tabbi ca biir àllub yaman mboolem bi yom teen doon gis ñuy wëndeelu fa yaman keroog la maas yaman tàbbi ca biir àllub yaman mboolem bidiw yam ceen da doon gis ñuy wëndee fa yaman mboolem garab gen yënguwul mboolem ngelaw len nu jógul mboolem asamaan si niral ñu lëg bu fa waa yaman mu naa guddee nguróoj di jooy di jooy ba bënne kooj mu xëy di ñaan yàlla di laaj naa gént fi yaman ndem luñ dëggal la delu am na del si guddi gi ma jëm na saytaane rajiim soppil ma mbir mi fi yaman yendoo keroog ba cëg bu tiis mboolem ba cëg ba bépp niis mboolem yaram ba wépp diis ngir mbir mu ma mu gisoon yendoo keroog ba cëg bu mboolem ba cëg ba bépp niis mboolem yaram ba wépp diis ngir mbir mu tiis ma mujj son ca nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat lu am la nang ko mën a waat demal Madina yàkku man ca nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat lu am la nang ko mën a waat demal Madina yàkku man maas li te wóolu na keroog yonnen ba faatu na keroog jooya maas jooyan keroog mu seefu koo jooy fa yaman jooy ba garab ya bokk jooy ginde yaman ya ser jooy malaaka yër ya jooy ngir jooy maas moon yaman ma moodu saw jooy la la aar yaa wayli wayli wayli aar fa aa fa aayin wayli aar ma jooy la maas moon yaman جبير بنا يا سيدي يا مالكي فاستدي يا ويلي ويلي السدي في ليل آسف يمن مجاي فجوي يقلول ناكو محمد رسول منون سنغب كدون رسول فاتنا تي من في يمن مغيد جل جدي جوي تغل دي جوي سك دي جوي سيجي دي جوي جكي دي جوي taaya ba sëlmal fa yaman fagaala yaa muhammada waabal qaasim shahida wa yaa himaaral masjida inna lillaahi la waxoon inna ilayhi raajiwoon dootuñ giseeti lam waxoon gannaaw keroog bam ne ma woon yowmal xiyaam yaa ku yaman jibriilu dootu naaw di ñëw déem ay waxyu taw di wax sangam luy nara xew tey dee gën dund fi man mu fa metteel gam ko joxoon delluy xalam lam ko waxoon tere ko koy ñaan na woon di lox di jooy fa waaye man mu fa metteel gam ko joxoon delluy xalam lam ko waxoon tere ko koy ñaan na woon di lox di jooy fa waaye man naa maa ngi ñaan borom metteel gile a tiim te mooy rasuul bu dee na gi géwént daal lu am la naa génn hadun ba mu xëyee nga bëggaleem fabrax teg ca kaw sëngiim yësal ko war tàllal loxoom di tàggu toog bokki yaman maasoor di bàcc di doxal ñanantu fa noppuluwul bu noppuloo dafa yësal gëleem ga julli nii la woon bésam ñenantee lañ xibaar ne tase naa kuñ ximaar ma ngay nuyoo keroogi maar mu di ko laaj yoonu yaman mas ko yow noo tudd naar mu ne ko man maa di ximaar te sama baayit kat yasaar moo diw turam ma jëm yaman ilaa maa sunnu jabal habiiboo xayru awal faraqa dunyaa te xamal maay ndaw li koy tàgg yaman maa sàcc foofale di jooy yaa wayli wayli wayli wooy malaaka yërmande ya jooy ngir jooy maas hoon yaman maas na himaa in mu yasaar madina muñ def ba siyaar mu ne ko tiis ga na waar ak di tawat maas fa yaman mu naa ba tey ma di la laaj keroog ba yonnen ba di waaj ngeen di fa teew ba mën a sooj lu ngeen defoon maa ngi fa yaman kenn talatul kenn tëddatul kenn doxatul kenn defatul kenn waxatul lu dul ne xollu ñaadi miir am ñu defoon kenn tëddatul kenn talatul kenn doxatul kenn waxatul kenn defatul lu ne xollu ñaadi miir am ñu defoon gàtt sàmmam ba ne mes ba xam na ñoom dootuñu gis ku leen wàññeeti ñu ne di yooy borop la ñu meloon mu naa Useynu ki Asan laala di laaj mu ñu defoon lekk ki naan day lañ woon ngir ga di jooy seen maam ja woon ñu bokk wéy maas ak imaar ba ca kanam fekk ab jëbeer muy sàmm ab di jiir maas jam ca moom moon yaman ñu bokk wéy maas ak imaar ba ca kanam fekk ab jëbeer muy samaab jàtti di jéer maas jëm ca moom moon yaman faxaala yaa amatulaa wa bil ilaa ilaa wa rasulullah kay fa faatu axbaran mu naa ko faatimatu man laa dégg muy jooy agasan agalu seynu ñanga naa yaa jadd naa te robon ate nga naa yaa ñoom ñaar ña woote te naa yaa jaddana yaa jaddana kenn wuyuwul fa mu tëddoon maas wi ba yegg di nuyoo kanaa yi setun la nuyoo salaamu bayti ma di risaala la waxoon jabel ba waaxu ñëw fi moom on xoodata diw turandoom naa ki yëngal buntu bi moom hum war doon la ko waxoon munaa maa sumnu jabal buntu bi maa ko fi yëngal tey kenn waru ko fee yëngal kudul maas moon yaman hun xoode wu bil ko mu wiy maas jooy fa aysatu jooy malaak yërmande ya jooy ngir jooy maas moon yaman maas naa ko aysatu yaa umul masaakiini wa yaa umul mu aminuuna yaa sangu bindee fi num defoon faatu rasulullaahi man sama xarit ba fi newoon te gën ni te jinneeg nga wax ma num defoon faatu rasulullaahi man sama xarit ba fi newoon te gën ni te jinneeg nga wax ma num defoon sara alayhi rabbuna sun buur bu mag ba yóbbu naa sangam sangam ya faddu naa julee ki salmal war won mu naaw maastaluma tey demal fa kër xaliyu kay waxtaan fa faatimatu jey kon mu solo la num mu waaxu dem kër xaliyoo ba mu demee dafa nuyoo faatimataane kii nuyoo yónni jabeer ba fa newoon reenu doo di aw turam mu baaxu ñëw ba fi wetam naa ki yëngal bunt bi kum mun a maas moon yaman rayaana too di aw turam mu baaxu ba fi wetam naa ki yëngal bunt bi kum mun a maas moon yaman rayaanu bil ko mu wey maas jooy fa faatimatu jooy maraaki yërmande ya jooy ngir jooy maas moon yaman maas naa ko faatimatu yow maa ngi lay giñal ci yàlla xëw solol ma faatoom nga te yow bu làkk fépp fu mu mu naa maas koo fekke woon keroog meloom ya mu meloon àdduna soof laak sa dootu la faale bi la dun yu suur ko ba mu gel dellooti suur ko ba mu gal niw dalde xoog ni la mel nii mi de diis fa yemam ku doon saaba ñëw fi moom mu seet gisu la yow ci ñoom mu naa maas fu mu dem baluum ñu naa ko maasa nga yaman mu naa nuyu leen ma maas te ngeen santal ma maas te ngeen waxal ma ne maas doxali naa ko yaman metti na mbambankab loxoom dellooti tàllalub loxoom ngiraw mettit wu nekki moom àdduna soofoon na fi man walaay maas mu jabal keroog yónneen ba nelawul Madina kenn ki nelawul te booba yow yaa nga yaman boo fekke woon bésub keroog àdduna soof la yow keroog dootu la faale moos keroog képp ku faale bi la dun nelawul sax ba bilaal noddu di woo xayru rasool waxtu yi ñëw na yaa rasool salaatu xayru la waxoon keroog la yónneen ba ne Ababacar jiite leen dellu ko baamu yaari yoon mbay jiite leen yaa fa yaman keroog la yónneem ba na leen Ababacar na jiite leen dellu ko baamu mbay jiite leen yaa fa yaman Ababacar moo jóg taxaw ronga yeyul mu ko yow xubuy taxaw fa nga taxaw farxaa ci fa yaman saaba ya baxaacu far seen mboole ser ngi na xar yonne na haayi setu far moo yooyu xaacu moo di lan mu naa ko saaba yaa di jooy lan fa newul moo tax ñu jooy fang daa taxaw ku teew fa jooy jàmbaar yi rët nañ la waxoon mu naa ko saaba yaa di jooy lan fa newul moo tax ñu jooy fang daa taxaw ku teew fa jooy jàmbaar ya rët nañ la waxoon yónneen na rabbi xawi nii xataa usallihim inni rajawtu an yaafi nii haasi salaatu yaa muyin bur yàlla féexal ko mu jóg asaamatam nu sayyidaat fallum naa baasa ñëwaat xaliyu ñi ñoo ko daroon ba mu ñëwee ñu bokk sabaal ko sigar ñii di luur yónne na Baabakar li wóor jiital bindee fi yaafatin yónneen ba jekki fa kanam Ababakar bañ baat bëlëm sappa ya dar si xolam génne ni waa ja fa yaman bañ salmalee yónneen na leen lan saari ak muhaajiriin tey maay nëeg yéen te di leen sant kañaa nal gudd fan ngiraan na nan ci ay naqar ñu bés na yéen ngeen doon ma jar ban bokk dencaay naqar na yàlla dolli siini fan badar ña yéen la àndaloon unay ni yéen laa fa gisoon te boog waxaa ndax a xarib uut yéen fa gën yéen a fa xaybara te yéen man waadil xuraa keroog la yéefa rus mare na yàlla lootal siini fan yéen a fa xaybara te yéen man waadil xuraa keroog la yéefarus ma reeb na yàlla lootal seeni fan jamaakum nasarakum ayyadakum yarhamakum ahaanakum islaamakum allahu rabbi ya amiin jamaakum nasarakum ayyadakum yarhamakum ahaanakum islaamakum allahu rabbi ya amiin gaay nuy leen ma maas te ngeen santal ma it maas te ngeen waxal ma ne maas doxali naa ko moog yaman na yàlla def ci yéen watal te dolli muñ ci seeni xol di leen jubal te yéwénal seen mbir naas fa yaman Mahmoudou Sow yow taxawal waxtaani fees na ci sa xol yal na nu maas nu jabal sedd ci cër ba mu amoon xarit ba yal na sun xarit xolam ba yàlla nañu ca seet mbootoo ma yàlla nañu ca boot na mbootoon maa sooya man xarit ba yàlla nañu sun xarit xolam ba yàlla nañu ca seet mbootoo ma yàlla nañu boot na mbootoon maa sooya man te bam nu tabeel yooye gaay te làq seen pastif ya te ful nu jox nu bóot ya ak booti daam mii nan nun ñi dagoo Ahmadu daam delluy siyaare ji ba saam am nan lu raw xel raw kalaam raw bind nun daal seddu nan nun ñi dagoo Ahmadu daam delluy siyaare ji ba saam am nan lu raw xel raw kalaam raw bind nun daal seddu nan ñaan nan ci barke daam ak soxna saak askanu maam balla nu jóor koy hadiyaam réew yëpp naat biyaaru fi kun ngeneel ya dénkaane maas lamboo njariñ yaraw xiyaas yàlla ma yónne may nu ban jot ca waawa sol mi nan mi laa salaatun wa xayri anaam waalihi zawi kiraam wa wa man amin min a salaatun wa salaam ala xayri anaam wa ali shawi kiram wa sabi wa man amin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin